noo gisee fan yi xale yi euh, waxante yu ñaaw yi ñuy waxante mbër ak morom ba ñu contrat boole leen ñuy waxante wax yu euh, ñaaw. ñàkk xam ak li ñu entraîné we jooñu yenn ba seen wen yu rëy loolu dong la mais soo demee dans l' état ay soixante cinq soixante huit dëgg la lii amu doon waaye dañoo mayante respect loolu tax suñu bëree day am xorom. Mm-hmm. gisoo léegi suñuy bëree. à part loolu ñuy wax amul amul sens amul xorom ak mbër yi war nañ moytu déclaration. mbër. war na mooy déclaration. ama seen sama doom ku baax toog na fii ci saal mu wax ko loolu du doo gis mu mu wax lu ñaaw. mbër su daanee dafa war a am limite bu mu wax suñ ko daanee war am limite bu mu wax pour ëllëg. waaye taxaw ci télévision bi di wax ba tudd sa waajur di kii di fëgg ak wala xam fonkatoo mag ñi da wax ci suuf doo ci mën dara benn sëriñ mënu la ñaanal sooy tàngal magu euh, te xolu mag ñi wala say supporter mooy euh, tàngal bi mooy lan yëgoo leen taar nga rek léegi yaa ngi leen romb isa tisan fu exporté yu njëkk amut bala ko xam tey Fala Baldé moom magul waaye fu ma gisaan ñaari loxo la may kon nag loolu liñ lañ koy dénk mbëri di koy dénk journaliste yi ñi ciy wax parce que jamono ji léegi yooyu ñuy def dañoo yaakaar ne dafa wàññi xoromu làmbañ face à fa yooyu dafa wàññi xoromu làmbañ mbër day gën a gisanteeg moom suñ tasee mu neex waaye mbër mooy ñetti fa ñetti ngeen taxaw di wax ci télévision ñu yaakaar ne loolu yëpp xaalis rek la te xaalis fu mu dugg rek fu mu defar mu yàqu xaalis lu mu defar mën na ko yàq yow yëpp loolu rek la su doon suñ sago day mel ni comme mu njëkk ko mën nag nga xam ne day da nga seet bi ma jógee Ziguinchor Falaye Bande laa di jàmm di bëri fii dafa mel mel ni son fi bi leen moo ci nekk oto laa jël ba fii suñ ko nag moo susoog stade bi mu nekk lu rëy ma doon ko la ñëpp ñëw loolu ba tey du dañ suñ xol yi waaye ni ñu delloo